murit bi ngàlla xew maa ngi lay waxati ku tax nga yéemaat sëriñ tuubaak ñoñam ñaati murit bi ngàlla xerew maa ngi lay waxati ku tax nga yéemaat sëriñ tuubaak ñoñam ñaati du man di tey ci wax leen gaa yi bamba ya ndax ñoo ñaama doy ñooy samay roy teef fi tuubaate xam seeni jaar-jaar te koy xamle di yoon wi ma saf def naa ko aw sas fi tuubaa man basiirooti yàlla ma def géwalub seex bamba ak ña dar may xool ko cay dalu sas tey bay ma kañ kooti way seex bamba ak doomam ya tey ma mébét ne cas ca seex sa ku baaxoon way ko ngeen xamati te sax deful kuñ réere naa ko mu doon turam wasiiw na fi dunyaa dun ko deeyaate ak bokk xam na ko lislaam xam ko yoon wi itam xam nañ sëriñ dëru ngir pasteef ca fam féete jàmbaar la as gor la tey muslim jullit bu dëggal daarul asan njaay murit saadix la ma waxati yàllaa ko tànnal mu bëggug baax te bokk fu baax newoon fi cig baax ba dem cig baax dëggal maati rafet na jikko te tànnub juddu bokk fu rëy feeñul ci askan wu ñuy musloo ka xeebaate njare maamam satub maam dem ba njaay njare la kañ xam ci ak baax ak kii kiimaan yu jombaate maamam ya diine ngorey seen bàkku néegi cosaan lu jiitu seex bamba feeñ lislaam lañuy noote ñoo toqi daarul asan nampal ko meenu ngërëm bam ne jalañ lañ ko sóob seen yoon wu baax waati baayam bu baax ba turam waay seex muhammadu njaay ñu naa ko moor faati laaj leen njaboot gaati ndeyam jayit ndey yonnen moom la bokkalu tur lu yàlla namm nga gis tànnam ga feeñ caati maam soxna amina kan mooy ismuha dëggalal jii ndey ju mat ndey la tëb sangam gërëm kooti daa farlu woon ca def itte sàkku ngërëm ba am ko buur yàlla jël sëñ dëeru kooti buur yàlla sàkk na jaam yooyu seeni ndey wéyeful ngir ñoom dañuy tànn seen waajur ya déngaati ngir nday ju bon juy xuloo kay toog di xas sëriñam di wàññi dépaas du koy jur doom ju yéemaate ku baax te sell di sonnal yàlla ak sëriñam te sàmm mooy jur ku ñuy raamal di ñaan looti lii tax am doom ju ñuy raamal ndeyaa ko lëggéey lu baax nga tex bay ko moo tax góob nga yiwwaati sa doom jëmbër la di kuñ xam ci jubag rafetal dib seex bu seey ci sëriñ tuuba sangam baati sëriñ bi jox na ko yëf yooyu ab yafus du koyor yor ci mbóot yu biire tere yéem naa ko man miiti yéem naa sëriñ daaru ngir fam bokk ak na mu mel ci dëggu ak dëddu dunyaa jublu oxoraati yéem naa ko ci sàmmaku way ak ci wattandiku ak fonki bokkam di leen seetee katerlaate yéem naa ko ci gëm akuk lislaami dee ko jam sariixatoog sunna ñooy yoonam yu jub yaati yéem naa ko ci dëggal ak bu sell téere yi ak yar ñu ñam ña ci diineeg yoonu bambaati yéem naa ko ngir istuwaaram riis ga dem na dayo ku xam ca aslëf lu tuut tuut faw yéem kooti diglul ma wax la fi aslëf man ci mbir yu ma xam ci mbooti deerul asan njaay mii fi wayati njarek sayer géefa njaambur moom la feeñe atum junneeg juróom ñeenti téeméer lu tof tuuti tofal na cib juróom fukk juróom ñetti at cib tënk mooy xansa sinneel tekki seet looti miilaadi yaadi atum xiisaa ci laa ko defal taarix ba jàpp ko 1858 rafet ne feeñiin ñu jortal kob liggéey bu rafet tuddew turam rafetal asan gisal liiti yor nañ ko yar ko fa ba mat xëy dalal ko fa baa sëñ aram samba daa jàngal sëriñ baati fa moom la nekk ba njàngam xaaj mu xëy ba ko fa ngay saa yoroy fa mu dem ngir jàngi xam kooti foofee la wàcce ba wàccaat mokkalee fa itam ba bind kaamil bu wow xëy ñaan lu dellooti ca yooyaat la laxas dem nii gi mbàkke kajoor di jàngi xam-xam fa maam moor anta mbërmaati mu gis fa seex ibra saar ak aadama ki sëriñ masamba xaritam ñuy bokk lal baate foofee la fekk sëriñ tuubaa ca daara ja muy ka jàngale tey ñaaxoo ka ñaaxaate mu def ko ab soppe ngir xemmem melom wacce mom cheikh bamba da sopp moy ko musla so faté ci li la sax ba sëriñ mor anta wàcc legge ci tam xarit ci sasin nit ak juróom ñettati te ya fan la fa jog yegul mu delu ci waat jiss bamba jox ko imbiram pas-pas ba yokoti fekkon na ndol makana cheikh bamba rikki weyel bul yam ci jàngile yow del woote jëm ci itte ca moomaat la ko naa fas daana woote bi keroog la ñenn dem ngir réere lam woote am gaayu nangu ca teel jaayante topp sëriñ tuubaa di ndigal tey daw gaati seex aadama jëkkër gëm seex bamba maa la ko wax Cheikh Ibra sar ba ci señ daam Abdou Jiit lanté njaboot waa Kër Sëñ Daaru Asan Njaay ñu ngi leen nuyu ba kenn ku nekk tur ak sant tey di bis bi muy xamante muy mag señ Daaru señ jay ñek fi fi ci Touba Fall ci kër Sëñ Cheikh Xadar ñu fekk fi am mbooloo mbokk talib yépp rek ñom ñëpp nga fi ñu fekk ci teewaay bi am solo ci magal gi wala bobu di jox señ bi mo defa ñu li nga xam ne bis bu sel bi nga xam ne amal fi ci kër sëñ bi ak lu mu fi jàng ci alxuraan xasida lépp ak berne yi fi def lépp incha allah dañu ko déglu fii kon balaa boobu dañu jox sëñ bi rek mu leeral ñu li nga xam ne moo am fii bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi euh, gannaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi salaahu alayhi wa salaam di sant Serigne Touba ñoo leen di jottali ay kàddu yu tukkee fii ci Serigne Alla njaay mi ibnu Serigne Cheikh Ndiaye Fati ibnu Serigne Abdourahim ibnu Serigne di nuyu mbokk yi nga xamne ñom lañu jotaayal ci groupe bi di groupe euh, jamaatu ibay yi daan jay TV di leen ziar bu baax baax di leen ndokkeel ci bis bi di leen jaajeufal ci taxaway yi mu mel ñu dik fi fekk ci fi ziar bi euh, ngir itam bis bi nga xamne mom lañ fi doon dundal li nga xamne non noonu lañ koy dundale ci mbolam gox yi keur serigne fii itam ci Touba Forage ñu taxawee fi noonu ngir lépp di yaatal liggéey bi ni nga xam ne noonu la ko sëriñ bi digle ñu tàmbalee woon ko ci li nga xam ne mooy li jiitu ci liggéey bis bi muy jàngal xuraan xasiida salaatu ala nabi ak istixfaar waaye boole ci berne yi nga xam ne moom lañ doon def ci loolu lañu yendu tey ngir màggal bis bi ni nga xam ne noonu la ko sëriñ bi bëggee loolu it ñu ci doon fàttaliku jëmm ju tedd waaye itam ay jëmm yu sell muy Serigne daro Assane Ndiaye ak mbollem ay njabotam tàmbalee ko ci ay domam ak setam ak setatam ak talibem lolou mo waral magel gi jog di bis bo xamne bis bu tedd la bis bu mag la bis bu am solo la bis bu am tarikh la ci l'islam waye don bis bu jafé ndax ni nga xamne noonu lañ koy dundalé njabot gi yep bolo nek ben ngir euh, dundal wax kaddu suñu borom gi suñu borom wax na wax tasimu bi jami'an wala tafarraqu loolu mu mel ne mbooloo miy dajee ci kër sëriñ Daara Assane dégg nañ kàddu googu bu baax a baax waaye li leen may ñu dégg ko it bokk na ci dénkaane bi nga xam ne ku tedd ki dénkoon nañu ko muy sëriñ Daara mu waxoon ne yéen sama njaboot nangeen ngeen boole seen bopp ba mel na sayu xat wi ñu takk ya tiboom loolu moo waral bis bii doon bis bu màgg doon bisu taarix ndax xëy na duñ ne amatul feneen waaye néew na ci yeneen gox loolu nag sant yàlla bér la kon daal li nga xam ne moom lañ fi doon def rek noonu lañ ko doon defee mooy màggal ko ci na waaye itam dundale ko ci taw ci taw tawhid ngir lépp sell ngir jëmm ji nga xam ne moom lañ ko defal ku ko xam ku nekk xam ne lépp ma sell kon lépp lu ñu koy defaree itam dafa war a sell loolu it ci lañ doon nab nabi ñoo ngi ñaan yàlla ak njaboot gi ñu ko àndal suñ borom nangul ñu lépp ci barkeb sëriñ bi di ñaanal kilifa yi nga xam ne ñoo nekk suñu kanam tàmbale ko sëriñ Abdou Khadir Ndiaye ak sëriñ Moussa ak mboolem mm, ki njabootu sëriñ Darou Sane gépp suñ borom yàggal leen fi loolu te ànd ak wér di wax ne ñu ngi jot li cantuk sëriñ bii di sëriñ alaaji ibnu sëriñ cheikh muy ñaanal mbokki jullit yi mbokki taalibe yëpp ci bis bii nga xam ne bisu maamam la yàlla defal ci mbooleem ni ñëpp jàmm ak xéewal waaye mi ngi ñaanal it ci ci mi ngi ñaan jàmm it ci réew mi ngir kenn ku nekk xam ne réew mi fi mu toll ci ay jafe-jafe ak ci xat-xat sëriñ bi mi ngi ñaan yàlla ci barke sëriñ Darou ci barke bis bi yàlla ci yàlla def jàmm defal ñu tawféex defal ñu xéewal musal ñun ñëpp mboolem lu fi ay pakk-pakk jafe-jafe yi am yëpp yàlla na ko yàlla euh, euh, soppi daf ko ay tawféex ñu ngi leen di jaajëf li yéen ci taxawaay bi ne am ngeen ko ci liggéey bi na ko yàlla gën a dëgëral ba lépp lu ngeen ci yéenee liggéeyal sëriñ Darou suñu borom defal leen ci lu kawe suñu jort ci barkeb sëriñ bi ñoo ngi jéglu ci kàddu ñëw moom itam jaayante xaamisuha la tànn méngoo na ak waxtu yi juróom yaati keroog la jaay mbokk gaag léppam fasoog ñamu am taqoog sëriñ bamba mi tey wut mbégam maati day xëy di gontu fa moom tey diglu ay ndigalam lum wax mu def lum ni déet mu daw ko tuubeeti jàng ak liggéey taxaneeg rootaani guddi bëccëg ci la nekkoon ba xëy jël ndam la ñibbeeti bamba ko moo tax cër ya toqi na ci jaamoo ka topp ndigal ak roy ñu baax ñaati du moy boroomam du tooñ nawleem du mus lu araam lum baax le jox sëriñ tuubaa sa ngam jëfam ju ja la jël jiital ca itte ju rëy naa làq man ngërëmal buur yàlla lay mébati neewoon na seex bamba bis ñëw naa di wut ngërëmal buur yàlla nag ma ko jox gan laa teral maati diglul ma wax la bayit yam bind jox ko sëriñ tuubaa nga xam ni asan mébét ma rëy naati ataytukal yawma bayfan at lu banna riba asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi nga xam ne yéen ñuy seetaan ñoo leen nuyu bu baax di leen ziyaare di leen ñaanal jàmm bu baax a baax te di ko sàkku ci yéen di ziyaare sëñ bi nga xam ne moom lañu fekk si fii bàyyi sëñ Jaw Njaay doomi sëñ Abdourahim nga xam ne moom lañ fekk si fii ci bisu Serigne Darou Hassane bi waa communication bi ñëw fi pour teew fi pour euh, xool ba xam moom nan lañu dundee bis bi ci suba ba tey ak bi ñuy commencé waajal màggal gi léegi nan lañu koy dundee kon ñu jox sëñ bi mu sànni ci ay kàddu sant bu waaw ndax lu ñu am rek moomu mm-hmm. waaw di ñaan seen barke daal mm-hmm. yàlla sunu borom yàggal ñu fi lool yàgg koo def yàgg koo ñaan ànd ko sunuy kilifa sunu borom yàggal suñu Muntaxa mi nga xam ne mooy xalifa sëñ Tuubaa ci kaw suuf xalifa du muridin mm-hmm. ak sëñ Abdou Khadir mi nga xam ne mooy xalifa sëñ Abdou sëñ Darou Assane ak sëñ ngi jéggul sax sëñ mun sëñ Modou Mokhtar mi nga xam ne si ne mooy xalifa Cheikh Moustapha di suñ bunt sëñ Tuubaa ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool te wér ak njabot bi gep ak yak dom yak sët yak jarwaat yi ñu koy ñaan baax di ñaan suñu khalifa bi suñ Moussa Faty mu yag lool te wér ak ay rakam ak dom ak jarbaatam ñep rek ci barke sëñ Tuubaa sëñ Daaru barke sëñ Ibrahima waaw ridwanuhu abadan bi ghayri sukhtin wa tawbihin wa afati yi lay bayit la waxoon cheikh Bamba epuna li nemat na ñaar fukki way ak ñett xam koti شيخ بامبا وينكو اي ابيات نوني لا بهول بشير لاكو ديف ديغلول ما وخلاتي جزاك ربك في الدارين يا حسن خيرا بجاه الذي من نجله الحسن حتى تهوس الذي ترجو وتأمله ممن له قد بدا الكتمان والعلن فاعلم بأن يا راد هنك متلب أم جاءك الفوز من مولاك والمكن فلا تسل في التقى والرشد مجتهدا كي لا يلاقيك العصيان والفتن yilay bayit la sëriñ Tuuba defoon di biral ngërëm la sëñ dëru am ci seede fum amati diglul ma wax la ba tey sëñ dëru bam yewi ko ba ñibbi ak ya ca xew kon tey nga waarooti bamba ko ñaanal mu dem ak yar bu mat ba ca mom fulam ja ak fayda ja ak pastéef ba muy woote ñu na ko deet bu mu jibli bokul ak lenu xam xaw ko xatal ba mu dem gis bamba mbeur maati seex bamba na ko dalal te sante yalla bu yeur ko mas de samp lu baax njël gamel niti kero la na ko demal keur mor ma jeng faalo Siar ko dem ci wetu gannar ci permati ngay doxte naa yesi wal sendi moy sa ndigal ba ak si nga def foofee sa dal bati te nek fa bur yalla ak yonen ba néng ma fayit dana fa ñaw luma am yewit nga am ciati kero la san ci dëkkam ba tudde ko faf wilew tur jam lay wote mbolo ma jalañ bokam yefek ya ci ko mu boole leen di teral ku mer mu reelooti ku réer mu gindi ku néew dooleet mu dimbali ko Seex Bamba def ko mbërëm mam samp foofaati moo tax ñu nangu ca teel jaayam te def ko suñu dafa la dagal saa su ne ngeen di ko dajee si kër mbokk taaliba ak si kër bi bu at mi dellusee ngeen baaxoo dajee si kër sëriñ bi ziyaare ah joxe seen addiya ak xidma yi nga xam ne moom moom moom leen sant ngeen di ko ànd ak moom di ko liggéey sëriñ lu mel na ko bis bii tàdd bi bisu bi di màggal sëñ Tuubaa yi lu mel ne ko liggéey ndigal lu fi teew lu mel na ko xam-xam euh, yooyu nga xam ne dañ koy ànd ak sëriñ bi di liggéey di ko liggéeyal sëriñ Tuubaa yooyu mooy sabab saabu am na jeexee ban dugg ci mois de décembre bi la fin bi saa bu ñu dugg si mois de bu ñëwee dañuy àndandoo teew ci kanam sëriñ bi def suñu ziar joxe suñu addiya ñaaxaat yi ñaanal ñu ah xool ñu bëkkam yu tedd yooyu ñu am si oh dañuy wax ne benn mbindeef ci yàlla yi wante saa bu ne jàkk ay doomam bu leen xoolee rek day daati regg Lola la billahi di def ci ay dongam sa buñ ñu teewee da fay fóot sen rag-rag xol ah, yokku len sen passif ak sen jambar ban mën a ca lan lan len tek mu yoon siraatal mutaqib bi jup wow waaw ah, bis sen da fay sunu watay magal ay don sax lu ko jitu da fa ñu nekk si wàccaay wi wante bis moy mooy ah, ubitek sunu magal ndax xam nga na la 18 boo xëy da nga la 19 te màggal gi la 19 la ak la 20 kon loolu mooy màggal gi moo tax saa su ne saa bu la 18 ñëwee dañuy daati euh, def siyaar daati commencé màggal gi loolu nag moo waral kon bisub bii di bis suñu asan bi li ngeen ko defee ci buntu kër yëpp li ngeen fa li ngeen fa fekk rek moom ngeen la ngeen fa bàyyi rek moo nekk fii la ngeen fa fekkit moo moom ngeen moom ngeen bàyyi fii Ah. yan kaddu ngay wax waa daayira bi nga xam ne ñoo doon def cotisation yi ba administration waaw loolu moom liñ si wax li yomb la ndax gars yi boromi positif lan ay jàmbar lan ñoom ñëpp bawuñu kenn góor jigéen mag ndaw ndax kenn wérante wu xam ngeen ne ah, laaj métti na mais joxe ma ko gën a métti ndax joxe dafa sax mu jox la soo ko mu wuyu la soo soxlaa jëmmam mu ñëw kon kooku desee la tura dara kon sëriñ bi mboolem taalib yëpp andi leen seen jëmm ak seen addiya ak seenu xel ak seen xam-xam. man jàngat nga jàngatee kàddu sëñ bi moom noonu la ko suñu borom bindee moom si li ni muy ni muy dund rek saabu bu wax loolu lay wax muy lan muy jaamu yàlla ak liggéey sëñ Tuubaa ndax foog fekk moom ci loolu lay dox loolu mooy yëg-yëgam te loolu si lay dund te képp ku xamit xam moom loolu mooy yëg-yëgam soxlu lenn lu jaamu yàlla. soxlu leen lu dul liggéey Sëriñ Tuubaa ñaar yooyu mooy mbiram ba loolu tax nag moom it saa su ne képp ku mu àndal ci loolu lay womal naan la ñëw ñu dem man day ni may doxee mooy ku dem ma dem ku demul ma dem ba pare it ànd ak kenn nit defar ko ci yoon yàlla moo ma gëral junni ñu topp ma te kenn defaru si kon moom defar rek moo ko ñor kon moo tax saa su ne kon képp ku ànd ak moom lim lay lim lay lim lay posé mooy nga gën a góorgóorlu ci jaamu yàlla. ak liggéeyal Sëriñ Tuubaa te loolu mooy li xam moo fi moo fi bàyyi ab murit ndax xetma bi muy liggéey bi ñuy liggéeyal Sëriñ Tuubaa loolu wax wax naa ko léegi ci sama njëlbeen wax dafay fóot li xam ne mooy gàkk-gàkk yi taalibe bi ndax ki xam yàlla moo mën a ñaan boromam boromam yiiram ki mu àndal wax na ñu sëñ bi leen xam sëñ bi nag moo xam boromam gannaaw nag comme moom moo xam boromam kon moom nañu ñaanal ci boromam ñun nag moom nañ ko ñaan ñun ndax ñun moom lañ xam aslamtu nafsi jajib mu sant farlooti na toom ba dem ni meles mbégteem ma ñëw ni jalañ muy soññ njàng ma ak liggéey ca tool yaati ci lii la nekk ba am mbooloo mu kenn gënu leen te ëpp leen pas-pasit yombul ci yoon weeti Seex Bàmba xëy ni jalañ moom it fa Daaru Salaam Daaru teeru ko tey bernde ka terlaate kem ña fan la fa am mbooloo ya ñëw di siyaar te naa sëriñ dëru yaa am gan gu jombaate tey jii nii ngeen xam ne dañu am xew-xew bu muy bisub sëriñ Darou Assane radiyallahu taala anhu nekk kenn si jàmbaar sëriñ Touba yi te ji di ab bisam nag ñun toog ñenn si ay njabootam fas yéene koo dénk sunuy kàddu mu nekk ki nga xam ne mooy sunu njiit muy Baye Gora Ndiaye nga xam ne moo jiite section bi nga xam ne moo nekk jamaatu ahibaay fédération jamaatu ahibaay féete fii ca Dakaaru Ndiaye ñu fas yéene ko dégg suñuy kàddu moo xam ñu nan lañu waajale màggal gi ak màggal gi taxawaay ban taxawaay lañ ci am kon suñu bàyyi góor ñu ngi lay dégg kàddu gi nga wax ñu fédération bi nan la waajale màggal gi ak taxawaay ban taxawaay lañ ci am bisimilah suñu asubillahi mina seytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil rahmaani rahim maliki yawmi diin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'iin ihdina siraatal mustaqiim siraatal laziina an'amta alayhim xayril maxduubi alayhim wa lad-daalliin gannaaw bu ñu nuyoo bokki jàmmaatul ay baay jàmmaatul seex seexul asan ci ndigal sëñ Abdu Xaadir ñu ngi sant daayira bi di leen gërëm jàmmaatul ay baay ndax liggéey bi ñu sumb yàlla defuñu ci ay xéwal ndax biñ ko tàmbalee ba léegi bis bu nekk di gën a avancé ñi ngi leen di ñaan ci kilifa kilifa gu nekk ci kër sëñ Daaru nga soññeel ñu say taalibe ba ñu gën a dugg ci liggéey bi ndax liggéey bi avancé na waaye nag mën na fi gën a avancé ñi ngeen di ñaan kilifa gu nekk nga soññ say taalibe rawatina ñi nekk ndakaaru bari na taalibe yi fa nekk te dayre bi ba léegi gisaguñ leen ci ñu leen di ñaan nag kenn ku nekk nga soññal ñu say taalibe ñu ñëw ci daayirab sëñ daaru bii ñu koy defee kër sëñ Mbàkke Madina al euh, bu jëkk ci weer wu nekk lañ ko fay dajee ñoo ngi ñaan nag kilifa gu nekk nga dimbali ñu ba daayira bi mën a avancer ci loolu ndax xaw na xaw nañ cee néew doole lool ndax bari na taaliba yu fa nekk la fa nekk ci ay taaliba ëpp na ay junni te ba léegi daayira bi eh, ñëwaguñ ci kon nag ñu soññi eh, taalibe yi ñoom ñëpp kenn ku ci nekk nga jéem a ñëw participer ci daayira bi ndax weeru dee dimaas ba nga jëkk ca weeru nga ñëw fa loola yomb na lool yomb na taalibe yi te bu ñu ci sëriñ si jàppale kenn ku ne nga soñ sa mbooloo yaakaar naa ne loola daañ ko jëfee ñi ngi ni sant nag képp koo xamante bi bokk nga ci dayru sëñ dayru bii e, fédération bi ñi ngi leen di ñaanal di leen gërëm xale yi ak mag ñi kilifa yi ak seen mbooloo ñoom ñëpp sant nañ leen gërëm nañ leen ndax bu avancé rek nun ñëpp la avancé ñi ngi leen sant leen gërëm jërë ngeen jëf bisimilah rahmaani rahim asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki daayira ay Baye Cheikh Assine man la Fallou Ndiaye xasaay Touba Colobane Dakar maa leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di leen bu baax di leen baalu àq it di leen baalu àq di leen baalu àq di leen baalu ñaanal yàlla jàmm ak xéewal comme ni ko Baye Gora waxee rek ci la suñu wax foofu lay jëm muy ci wàllu daayira bi kenn ku ne soññi mbooloo moom am Dakar rek ñun ñëpp naan ndoo yëkkatee ndokatoo tegandoo ni ko sëñ Darou Assane a woon nu nekk euh, wenn say rek euh, bu defee ñun bëgg daanu ko am. waaw kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm yal nañu ko yàgg a teewe jërë ngeen jëf asalaam salaamaaleykum wa rahmatullahi taala bi di sant yàlla yu seenaa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam seer xaadimul sunu maam ju baax ji ba xam ne lii lépp moo ko waral maa ngi sant ñëpp maa ngi jiital sunu sëriñ bu baax bi kilifa diine gi sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg te ànd ak ñaan sëñ Abdou Xaadim Ndiaye xalifu sëñ daro Assane Ndiaye ak rakam ak taalibe ak ñepp rek ak soppe sëñ Daaru Assane Ndiaye xarit bi ñepp rek ak kurib taalibe ya leen yalla jàppale ci barke sëñ Daaru ba lu man ren bu nak ñu man lu ko ëpp ci ñi ak ñi mu dégg ñepp rek goor ak jigéen maa nga ndaw yalla yalla defal jamm ko defal ko ànd su ci barke sëñ Daaru ñu yàgg koo teewe te rafetu fekkeen ngeen jëf jere ngeen jëf ak la sante be dégg te fab la mu am joxaat ko ak ñamu am naanoo ngi yees looti sëriñ ba nangul ko léppam ñaax ko sant ko faat ñaanal ko dellu mu des naa man du may tëddati keroog la fedd li gëm yokkooti far lu ci jëf naa coona ñëw na amul nof lay ci kër géeti day dëkk julli di woor tey naa fi laa kadurus xuraanu ak di liggéey sellal garaw faati ma wax la tuuti ci ay jagleem nga xam ni kemam yombul te yombul te yombul nag ma teew looti buur yàlla may na ko fu mu toogaan janaaw bu sabee mu xam la muy wax ba koy leeral fa gaañaati dencoon na doomi sëriñ tuubaa mag jañu naa maam soxna faat ja walaay gii jagle rëy naati moo masa jiiteet sëriñ tuubaa jullik farata gii jagle doy na ci ay jagleem nangul maati ma wax la nam def gannaaw daaru salaami nga xam ni mës la toog faste ay baaraam fa réew maati daa génn daaru salaam ngir suuf su xat safa moom dem jàllu daaru biram boo di dog looti ñoom ñu teeru communication boobu léegi ñu ngi wër waañ ñi ñu ngi fii fekk fii ki wax Cheikh Xewal moom bokk ci moom moom yi xam ne bokk na si yi nga xam ne ñoo jiitee waañ yi ba léegi ñu ngi nii isaa yi ñu toll si wàllu xewlu wi daanaka ñoom ñoom ñëpp bu leen ban xëy ba léegi gis nañ jàmbaar si liggéey bi kon nag ñoom lañ fekk fii si wàllu waañ wi ñu fas yéene laaj leen ba xam suba ba léegi ak ni ñu doxee ñi nga xamante ni ñoom ñooy gan yi si wàllu berne yi kon nag dañ koy jox moom mi nga xamante ni moo jiite wàllu xamante ni ñoo nekk si wàllu commission wàllu waañ wi mu defa ñu si leeral bu baax a baax kon nag bisimilah sëñ bi mbokk yi ñu ngi di nuyu di seer siyaar baax di leen baal wax te di leen ko baal di leen ñaanal jàmm ji te di ko sàkku ci yéen eh, di sant yàlla baax a baax ba mu ñu boolee ci bis bi ba bare boole ci liggéey bi. ñu bokk ci benn commission bu ñu tuddee commission organisation jamaatu xibaar Cheikh Hassane waaye ci biir commission boobu ñu bokk ci lu ñu tuddee sous commission waañ sous commission waañ nag yor ab liggéey bu am solo ci wàllu ci wàllu waañ di liggéey liggéey boo xam ne liggéey bi yaatu la. suñ borom dogal ñu commencé woon liggéey bi dipp ba ñu génnee màggul daaw jëm si ren di dajee ci ay waxtaan yu yaatu yaatu ngir lan waajal bés bi bi nga xam ne màggal gi jege see tamit ñu fas yéene dajee waxtaan ci li xam si ne moom mooy sous commission waañ di ci dajee di ci waxtaan waxtu di ci liggéey ay liggéey yu am solo ba suñ borom dogal ñees ci bés bi waajal ko ci wàccaayu yaatu yaatu ndax ñëpp xam na màggal gi màggal la goo xam si ne màggal gu rëy rëy la goo xam si ne day soxla woo liggéey bu yaatu yaatu ndax ñi ngi soxla dool ci juróom-ñeenti waañ juróom-ñeenti waañ yi waañu dina taal lu baree bari ci ay ci ay xéewal te loolu ay jëwriñ la yoo xam si ñoom ñoo koy partagé topp ko liggéey ba mu sotti mu mel na suñ ko doon dañuy wax ne lu mel na Taïf Mbàkke jox na leen waañ muy section ahibaay bi nekk foofu lu mel na Touba Darou Ndiaye gi màggal gi xewee lu mel ne Gédé lu mel ne forage lu mel ne carte bu Bamba lu mel ne Kër Wele lu mel ne Jàmmagan ak Daaru Salaam Gédé ñoo ñëpp am am nañu waañ muy liggéey boo xam si noonu lañ koy séddalee waaye suñu paree ci biir su commission ñu séddaat ko ay commission am solo muy ñoo xam si ne ñooy saytu wàllum séddale muy lu ñu tudd sous-commission séddale ak sous-commission raxas bi ak ñi xam si ne ñooy toppatoo wàllum soosey wàllu yu ñu paree nag doo xool nag xéewal yi bu paree ba mi di jot ñu jokkoo ak bu ñu joxee ndigal ñu xool naka lañ koy séddalee mu commencé ci diggante kër xalif yi ki fi nekk suñu deru jaar ci baas bi jaar ci mbeddum baas bi ñëw ba yegg si fi nga xam si ne mooy ci waañ wi waaye dugg ci kër yi nga xam si na yu tool ci presque que et quelques man yoo xam ne dañu ko jël yóbbu ko ci kër gan ñi ndax sabab bi mooy foofu tamit suñu nit ñoo ne moo xam lu ñu tuddee kër sëriñ si la wala kër yi nga xam ne dañoo dëkk ci koñ bi te yàlla dogal màggal gi di am mbool di fa am kon li nga xam si moom lañ toog muy jege ci 200 mbana ci noonu lañ koy partagé li toll ci 100 nangam yi dañ koy yëkkati dugal ko ci ay kër jox leen ko ndax seen i gan ak ña fa nekk te nekkal fa dayra bi li nga xam si moo tax ci soixante et quelques mbané yi moom la jël séddale ko ci ay bool mu dem ci diggante kër xalifa bi jaar ci baas bi ba ñëw ci wàññi waaye dem ci yenn gan yi xam dañ leen daal te war a toppatoo noonu noonu mooy liggéey bi ànd ceeg suñu jëwrin suñu njiit di Serigne Cheikh Mariam Absa ak mboolem ñu àndal ci liggéey bi ñu nekk ci boobu balee di tësasi ba yàlla dogal fi noonu ñu ngi ci waxtu séddale muy li ci gën a jafe na ndax nit bis bi nag damay wax ne bis la boo xam si ne bis am solo bu jar ndamoo waaye bis la bu jar góorgóorlu ndax Serigne Touba ñun ñëpp xam nañ ko xam fi tegoon jaamu yàlla xam fi liggéey ak ni ci sonne woon waaye dafa seede ne képp ku liggéeyal Serigne kon li dee ci wee sa araam na sawara te Serigne Touba ñëpp xam nañ du waxee bakkan te Serigne Touba Assane ñëpp xam nañ ko ci jaamu yàlla ak nangoo liggéey kon su ko yàlla defalee lii ñun ñu ay ndaw a du du la liggéey loolu ñun ñëpp maas nañ ko xam baax a baax kon yàlla nañu yàlla dimbali ba lépp loo xam ne ko ci sàkku te bëgg ko ci mu yombal ñu defal ñu ko di soññ ndaw ñi ak ak kilifa yi ak parents yi ngir ñëw jàpp ci liggéey bu baax a baax a baax ndax jamaat Ahibahil Cheikh Alassane di mbooloo mi lëkkale njaboot su desan dafa soxla woon mbooloo ma bare bari te mbooloo mi am na am na ko njaboot gi nekk na fi kon nañ leen soññ ñëw dugg ci liggéey bi jàpp ci ñu jéem a yëg liggéey bi mu dem fi nga xam ne lañ ko bëggee ndax mbooloo am na fi pas-pas bi am na fi pëstéef am na fi xam-xam bi fi kon soññee bi moo def nan soññe mbooloo mépp ñu ñëw fas yéene ànd ak ñun ci liggéey bi ndax liñ ci bëgg ñoon tam ñi ngi jégal wax ci kàddu gi comme foofu na nga daanee ci biir kàddu gi nag ay sous commission yoo xam ne moom kenn ku ne daa nga foofu yow nag daanaka yaa bokk bokk ci ñi nga xam ne ñi ngi séddale dama leen laaj ba xam ba ba xam amu benn jafe-jafe si wàllu xéwlu gi bëgg naa nga leer ci waaw séddale mu ci benn jafe ndax man maa jiite sous commission waañ moo am sous commission demee ay ay pàcc biir lu ñuy wax séddale sous raxas ñi nga xam seen ñooy seetu wàllum dugg mi ak ñi seetu wàllum nokkas bi loolu li ñu jublu mooy bëgg liggéey bi technique te yomb waa ñu te ñu partagé ko wenn waañ la waaye bëgg liggéey bi yomb moo tax ñu def ko juróom-ñeenti waañ seetlu bi bu ñu toll ak léegi ba daam gisuñu benn jafe-jafe ndax actuellement ñi ngi ci ñi ngi tibb di defar suñu defaree ñi defar ñi ngi defar ñi yóbbu di yóbbu ndax équipe la dafa am koo xam ne moom lañ dénk kër xalifa bi ngir war koo baas bi am ku dégg diggante baas bi ak waañ mooy mbedd mi am ko xam ne ñoom moom lañ dénk gan ñi soo defee ku ñëw ci ñoom daana man nangam bool soo béréb sàngam fekk defar nañ ko ba jël ko jox ko rek moom mu dem mbu ànd ak mbooloo dem su mbooloo mi boole ñu bon mbooloo jël ko delloosi moo tax liggéey ba daal lépp yomb na fa